ñi ñaan yàlla mu di ko sambatal ci suñu kaw ilaa yamil xiyaama ñoo ngi del si di leen nuyu ci bat jataay bi nga xam ne da baaxoo nañ di leen fi nuyoo ci seen site bi nga xam di mouslihttv.com di del siwaat ak yéen dart bi ñu fiy mujj ñu ngi taxawoon ak yéen ca téere bee di al axdari yu ñu joxal leen dig daje ne bu ñu fi del siwaatee tombeek weeru màgg wi nga xam ne yàlla dogal ñu ñu dugg ko di ramadaan nga xam ne suñu jotaay dañ ko bëgg a wëlbati jëm ak moom ci wàllu woowa di fàttalante gi yéen jëm ci wàllu koor ci téere bi nga xam ne mooy risaala ibn abi zeydin alxeerawaani muy weeru màgg woo nga xam ne kadolo ci xeetu yent yàlla muhammad bokk na ci ay ngëneelam yent yàlla muhammad nee na njëlbénam njëlbénu weer yi fukki njëkk yi yërmande la pour en ah, xeet wi waaye naka noonu digg bi njéggal la ci xeet wi waaye fukki mujj yi di gore ci safara nga xam ne weer la wu bari na nga lool léegi nag bari na ay masala yoo xam ne nag dafay làmboo ci biir weer yi ci yoo xam ne nit kiy war dana ko dab wala ban tolluwaay loolu nag lañ bëgg a ñëw ànd ak yeen ci téere bi ñu tuddee risaalal ibn abi zeydin alxeyrawaan yi mooy bunt bi muy tuddee baabu fi sawmi bunt bi jàngal jëm ci wàllu koor kon mi ngi wax ne baabun li ab bunt la fi siyaami lu jëm ci wàllu koor mu ne wa sawmu sëhru ramadaana woor weeru koor faridatun farata la woor weeru koor mu ne farata la ndax borom bi subhaanahu wa taala moo ko farataal ci alquran ci fa muy waxee ne yaa ayuha alladina aamanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun yàlla mooy woote na yéen ñi nga xam ne yéen a gëm alquran yéen ñi nga xam ne yéen a gëm ne bis penc am na yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa farataal ci yéen koor comme ni ma ko farataalee ci xeet yi leen jiitu woon li ci jëlee nag bu ngeen ko defee te dëgg-dëgg di bu ngeen ko defee nam waree rek li ngeen ci jëlee mooy ak yàlla mu ne nag ayyaaman maadudaat ndeysaan yàlla mu ne bis la yoo xam ne bëriwut dañ koy conté ndax dañuy wax ne lépp li ñuy compter bëriwut gën gaa bëri faneeri fan di ko weesu wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent kon bëriwut moom koor moom nag kañ lay commencé ak kañ lañ ko war a def mu ne yu saamu def na woor li ru'yatihi ci buñ gisee weer waaye naka noonu tamit wa yuftiru li ru'yatihi kañ lay koor di war mooy buñ gisee weer muy méngoog la yent yàlla muhammad waxoon ne suumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati nee na dee leen woor bu ngeen gisee weer waaye naka noonu tamit dee leen wori bu ngeen gisee weer mu ne boo xamee ne nag gisu leen weer na ngeen nattale ci weeru Shaaban ci bu dee ba mat fanweer bu matee fanweer te gisu leen na ngeen xëy woor waaye ne bu dee yàlla dogal na ngeen ñaar fukk ak juróom yéen ngeen séntu gisu leen dara amaana asamaan si néexut wala lëndëm na boobaa bu ngeen gisul nag nee boobaa nangeen mottali saabaan rek muy fanweer boobaa nag bu ngeen xëyee sa suba sa ngeen ngeen woor kon mi ngi moo tax waa ji nee na kaana moo xam salaasina yowman moo xam faneeri fan la aw tisan wa ashrina yowman wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent fain fa in xumma boo xamee na muuru na mu yiiru na alxilaal weeru fa yauddu na ngeen lim salaasina yowman min xurati shahri allati qablahu bu dee dem ngeen ñaar fukk ak juróom-ñeent ngeen séentu gis leen dara ndax asamaan su naqari boobaa mottali leen saabaan muy fanweer bu ngeen xëyee ci ëllëg sa rek ah, ngeen daal di woor ndax woor ma weer ma mënut ta weesu ñaa mënut a weetu fanweeri fan ndax dañuy wax ne cosaanal weer yent yàlla Muhammad bi ñu koy jàngale dana weer lii la fukki fan mu def ni bankaat yëkkatiwaat muy ñaar fukk bi mu yëkkatiwaatee daa banque benn baaraam bi mooy ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne ko nag ngeen door a matali fanweer kon cosaanal weer ñaar fukki fan la ak juróom-ñeent kon fanweer normalement kon da ci euh, juux moo tax nee na bu ngeen gisu ci ñaar ak juróom def leen chaban muy muy fanweer bu ngeen xëyee ci ëllëg sa rek ngeen daal di woor mu ne wa kadalika naka noonu comme ni ma wax nii fil fitri bu dee ci wari la bu dee ci wari la tamit dem ngeen ñaar fukki fan ak juróom gis leen dara koor gi def leen ko muy fanweeri fan bu ngeen xëyee ci ëllëg sa ngeen daal di wori mais nag neen fa in xumma la wax bu dee nag dafa yiiru maanaam asamaan si neexut mën naa mi ngi fi de waaye neexut waaye mun leen koo gis nee na boobaa tamit da ngeen mottali bu dee ci ah, da ngeen séntu weer mottali leen mu nekk faneeri Shaabaan bu dee ci weeru koor la mottali leen koor mu nekk faneeri fan léegi koor kañ lay war nit ki ak ban heure la war a commencé ngir koor mën a wér mu ne wayu bayitu siyaama nit ki day fanaa day fanaanoo koor fi awwalihi ci njëlbeneel guddi ga keral bi nga xamee ne wax neen la weer feeñ na timis la yow daal fexeel balaa fajar a xar na sa yéene dugg waaye bu bàyyi ba fajar jot boo kooree du wér kon koor balaa wér day fekk nga fanaanoo yéene gi wala bi dee teel ngaa yeewu tamit nga yéene avant fajar di xar boo ko defee nag mu ne walaysa alayhi bayaatu fi baqiyatihi nee na bu dee koor gépp koor goo xam ne dafa war ñu toftale ko boo yéenee benn yéene bu njëkk bi dana doy sëkk jaretut chaque jour nga naan maa ngi fas yéene yéene waaye ko bépp koor goo xam ne dafa war a toftaloo benn yéene bi nga yéene day doy sëkk ci weeru yépp bu la neexee ne chaque jour nga xëy beesal waaye dal benn yéene bi moom doy na lépp ala mu ne nag wayutimu siyaama def na matal koor def na jàpp koor ilal layli ba guddi mooy boo fayar xaree daal dañ lay aaye lekk ba guddi ba timis kon mi ngi noon mu ne bokk na ci sunnay koor wa mina sunnati bokk na ci sunna taajilul fitri gaaw a dog mooy sunna bi ñuy wax ne xam naa moo gën a neex mbayeen yeeg ñu sant Ture mooy gaaw a dog waaye na waxuñ gaaw a dog te waxtu wa jotut waaye nag bu waxtu wa jotee dañuy bëgg nga dog koor gi lépp lay def nga dool koo defi soo paree door ñëw kii waaye daal bu mu jot nga ne xaaral ma bàyyi ba def naa nga ba pare wala di wane na ñeme naa xiif waaye dafa bokk ci sunna bu heure ba jotee rek nga dog waaye naka noonu tamit wa taxiru suxuure ak yéex a xëdd comme ni ñu ko waxee yéex a xëdd nga bàyyi tamit ba buñ bàyyi ba trois nga ne xaaral ma xëdd wala nga man tayal naa jug fayat déer xëdd sunna la kon jéemal di jug di ko def ban heure ak yan waxtu lañ ko war a arrêté amaana boo ma toppee ci dars yi ci kanam rek dana leeral nu ko war a defee ak li ci yent yàlla Muhammad jàngale kon taqiru suxuuri mooy yéex a xëdd bokk na ci ah, sunnay koor ba tey nee na wa in sàkka képp kuy sikki sàkka fil fajari ndax fajar jot na wala jotut mu ne falaa yàkkul bul lekk képp kuy sikki sàkka ndax fajar jot na wala jotut arrêtal sa lekk waaye bu na xaaral ma lekk rek wóor mën naa am jeexagut déedéet booy sikki sàkk rek bàyyi lekk gi mu ne wala yu saamu defut woor yow mu sakk bisu sikki sàkka taata bi ngir mu lëmte la loolu mooy lan may maanaam ñi ngi naan asama weer feeñ wala féer nga ah man da xaaral ma yéen rek man bu yeew mu feeñ am naa bu amul tamit am naa loolu boo ko kooree koor gu mel noonu du doy ndonte yeewu nga sax ñu ne la bis bi ci koor la bokk boo ko wooree naafal lay doon waaye ku da fay bis moom yow ni ñaa ngi séntu leeral gi nga ne xaaral ma yéene woo rek man bu ñu yeewoo ñu feeñ alhamdulilah bu feeñu timit ah, nga ne def naa ko naafal loolu doyut bu feeñee bu feeñu yépp sa koor goog naafal lay doon waaye du nekk koor ak farata ndax koor balaa weer day fekk ñu gis weer te yow bi ngay yéene ñu weer kon loolu du doy moo tax mu ne waman saamahu kaza lam yi képp ko ko wooree nii nit ñi séntu pareegu nga ne xaaral ma yéene rek nee loolu du doy heureusement mu tombeek mu bokk ci weeru koor booba du doy waaye nag wali man saa kum neex tamit saw ma hoo nga war ko tatawuan ngir coobare bu la neexee nga def ko nag ngir naafale kese waaye koor farata moom donte bis bu dëppoon ak koor sax du wér mu ne waman asbaxa ko xëy na képp ko xëy falam yàkkul te lekkut waaye walam yashbu yashrab te naanut képp ko xëy lekkut naanut su mata bayyana lahu topp mu leer ko na anna dhalika al yawmu naka bis bii mina ramadaan ci weeru koor la bokk lam yu gisihi du ko doy waaye nag wal sikk na jàpp anil akli ci bàyyi lekk fi baqiyati yi ci les sa bis koo xam ne xëy nga lekk goo naana goo nga dox tuuti ñin la nekk te weeru feeñ na démb koo bis boobu du doy koor waaye nag li ko islaam di wax warmaalal weeru koor gi nga bañ a lekk bañ a naan waaye nag bu koor ga jeexee da ngay fay bis ndax amoon yéene te innamal amaali bi niyaati yàgg jàngale ndax jëf ji nekk dafay aju ci yéen te yow amoon yéene kon loolu du doy waa tax mu ne nag wa yaqdihi boobaa nag day fay bis mu ne wa ida qadima al musaafiru bu ñibsee ku tukki woon muftiran fekk dafa dog aw tahurati wala laab alxaaidu ku amoon régal naxaaran bëccëg ñoom ñaar ñoon de fa la huma ñeel na leen ak lekk fi baqiyati yawmihima li des ci seen bis bi ki nga xam ne dafa tukki woon tukki mu dagana wàññi ndax borom bi moo ñu waxoon fa man kaana ko maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin uxar wala jigéen gi nga xam ne moom nekkoon na ci baaxam dem ba bëccëgu weer koor régalem arrêté ñoom ñaar ñooñu ne na may ne leen li des ci bis bi ñu continuer lekk ñoom ñaar ñooñu moo tax mu ne ñoom ñaar may na li des lekk li des ci bis bi ñu lekk mu ne wa man aftara képp ko dog fi tatawwaa ci koor ak coobarewu maanaam moo amoon envie ak woor comme altine wala alxames mu dog ci nag amidan te fekk moo ko tey aw saafara wala mu tukki fii fiihi aw saafara fii fiihi wala mu tukki fa aftara mu dog li safarihi ngir tukki mim doon tukki fa alayhi war na leen alxadaa u fay képp ku doon koor koor ak naafale ba ci digg ba nga dagg ko wala nga nga nga nga tukki woon dagg ñoom ñaar ñoon après seen bis yi dañ koy dañ koy fay mu ne wa is aftara bu dogee saahiyan ngir njuumte nag fala qada alayhi xan fay war ci bi xilaafil farida ci wuuteeg farata bu dee moom mi nga xamante doon woor ngir coobare nag dafa dog ci njuumte boobaa nag du ko fay xam naa kon ñu ngi ñëw wàcce foofu kàddu gi doy loolu bu ñu fa dellusee incha allah topp téere bi rek amaana fekk koor gi jeex bunt bi ah, dañu ko mën a topp ba koor gi jeex incha allah bëri na masala yoo xam ne dana ko leeral ci biir kon ñu ngi wàcce foofu kàddu gi di jaajëfal oustaz Saïd mi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo ci euh, kaddu gi di jaajëfal mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ci site bi euh, di soññ ñi nga xam ne abonné ko ñu abonné ndax xam ne bu waxtaan duggee rek ñu mën ko am direct kon ñu ngi wàcc foofu seen kaddu di wax ne in uridu illa al islaha mastataat wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kawel boo leen xeloo kon mu doy ngeen xam